jërëjëf di day décision boo xam ni bu am solo la ndax dafay respecter la constitution <coughs> euh, président euh, wax na ko ni pour moom am na ci droit selon la lettre ni ñu bindee l' article vingt sept de la constitution foofu nag dafa am amoon polémique am na ñoo xam ne dañ jàppoon ni amul si woon droit selon la lettre même man ci laa bokkoon léegi nag. évidement respecté na dans tous les cas l'esprit de la constitution mooy bi ñu def réforme bi depuis 2001 dañ jàppoon ni Sénégal moom ñaari mandat doy na moom la ñëpp jàppoon loolu mooy l'esprit c'est-à-dire ñu defoon réforme bi yëpp ba ci référendum 2016 kenn remettrul en question ñaari mandat yi gars dañ jàppoon limitation moo baax loolu mooy l'esprit du texte mm-hmm. donc président lu bon bon d'accord na ak ñëpp ci l'esprit du texte mooy boo defee deux mandats Sénégal da nga war a dem. keneen léegi damay ajouter d'ailleurs mm. que ce débat est fini. parce que l'article 103 dafa verrouillé daf ni ñett ngi kenn mënatu ko laal kenn mënatu ko réformer mooy la forme républicaine de l'État son caractère laïque ak les deux mandats c'est-à-dire que ah. normalement au Sénégal c'est terminé donc ñu koy féliciter. parce que dafa laajoon courage li tax mu laaj courage mooy tout son camp à surtout les femmes <laughs> damay tooñ les femmes <laughs> non dañ ni carrément président boo boo nanguwul sax yow nga ne candidat ñu bañ sa loxo si le faut ñu damm sa loxo y a des gens des mots utilisés pour que nga ne candidat loolu pression la de l'entourage Abdou Diouf si biroon na pression boobu hein Maître si si biroon na pression boobu pression dafa fort parce que du yow rek mais ñi nga ñi nga àndal ñi nga njaboote foofu la difficulté bi nekkoon la preuve dafa inversé inversé bi mooy la mu waroon def la mujjee la mu waroon jëkkee la mu waroon jëkkee mooy waxtaan ak ñooñam ne leen ñi laa bëgg a def waxtaan ak ña mu àndaloon waxtaan ak ay alliés loolu moo doon la bon démarche n'est-ce pas mais mënu ko parce que boobaa information bi senn léegi nag dafa obligé wax ak sénégalais yi ba pare. wëlbatiku war a dellu si camp nag. benn bokk yaakaar APR pour rek convaincre leen ni lii moo tax ma def ko lii moo tax ma def ko lii def leen nii def leen nii def leen nii wala bokk def avec la pression bi ngay wax nii mu nekk pression bu nga xamante ni yombul parce que nag président mm-hmm. euh, keroog bi mu génnee mënoon na ne damay dem 2024 waaw kan moo ciy mën dara mm-hmm. il pouvait le dire non il pouvait mais ges ce qui a mm-hmm. mu mu jël cette décision là parce que xam nga nit da ngay fexe ba entrer dans l'histoire par la grande porte parce que loolu dafa am solo. Mhm. xam nga cinq ans du dara. tey il a tout à gagner pour mu dem que mu toog parce que bu demee. Mhm. mën na ñëwaat mu rafet en deux mille vingt neuf mën na ñëw ah man kat dama bëggaat. nekk candidat xam nga kenn du ni non parce que gis nañ ko Nigéria euh, Buhari gis nañ ko Mathieu Kérékou Bénin gis nañ ko Lula Brésil gis nañ ko faneen ak faneen ak faneen président Poutine nekk na fi président wëlbatiku bàyyi. Mhm. Medvedev nekk président moom mu nekk premier ministre ba Medvedev wàcc moom mu nekkat président. xam nga gis nañ ko fi. mais boo boo persister. mu ñaaw nit ñi xeex am ñu faatu nangam nangam teewul un y a deux obstacles yu la dese. muy <laughs> premier obstacle conseil constitutionnel xamoo lu muy décider <clears throat> quoi qu'on dise les juges sont tellement autonomes mën nañ la surprendre à tout moment. Mhm. parce que mënoo xam lu ñuy décider. lu wax jëy bëri nii rek mais mënoo xam ça c'est un premier obstacle deuxième obstacle les sénégalais. waaw est-ce que bi ko fi maître Wade defee est que fal nañ ko. faluñu ko donc deux obstacles yooyu rek majeur mu ngi déjà mu ngi sa kanam. Mhm. teewul yow ñaaw nga fi déjà. Mhm. donc jar ko. je pense que intelligemment boo réfléchir da nga ne ah <clears throat> man de naa bàyyi. pour pourquoi parce que réew mi euh, ñi ko mën a yor bari na sama camp benn bokk yaakaar c'est organiser bari nañ poids politique am nañ ay cadres am naa bilan bu ma mën a défendre donc naa bàyyi keneen. mu défendre ko man ma ne ci wetam liggéey. parce que a ngi nii. boo fa nee candidat candidat de substitution ngay nekk. muy bennoo boo fa nee candidat Macky Sall en réalité mooy candidat bi waxin la. l'ombre de Macky Sall est boo fay candidat Ablaye Wade da ngi fi. <laughs> ñooñu kooku kooku mooy bon ah, ah, benn candidat boo xam ne mënoo ko éliminer. l'ombre est là de Ablaye Wade et l'ombre de Macky loolu moo tax toutes ces raisons là font que et puis pour l'intérêt supérieur du Sénégal l'intérêt la stabilité du pays ak ak débat bi ni ko tension bi les morts euh, les problèmes avec l'opposition la mobilisation F24 mais yooyu tax na effectivement bii décision moo nekkoon la décision la plus intéressante